asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokki presse bi di nuyu suñu yaay yi ak suñu papa yi toog tey jii di wax ak àddina man bi ma juddoo ba léegi maa ngi door a gis circonstance boo xam ni dafa émotionnel yaa naa journaliste soo leen xool dañuy xam ne seen yaram wala seen kanam am na lu ciy feeñ te kenn képp nag moo ko waral kenn kepp moy Macky Sall parce que dañ ko dénk suñu rew momu jël lolu diko ko aw askanam parce que liñ fi wax so ba légui injustice képp la wax ma jàppal nag wax ji farakulaay na ñun biñ ñu détat en détention Rebeuss président wala l'ex président Macky Sall daana day wota dialogue ñun détenus politiques dañu jël suñu responsabilité fexe ba. président dégguñu Ousmane Sonko ñu ne ko ñun demuñ ci dialogue ñun dialogue wuñu fekkee Macky Sall si dialogue boobu lay sukkandiku pour def santa pour woo la nga ñëw waxtaan moom ñun demuñu bul dem parce que dañ ñoo tooñ kon li détenu wax démb moom lañu wax ak tey kon nag détenu yi wax moom la seen i yaay ak seeni i waajur fekk si ne ñoom dialogue wuñ amnistie wuñ ñaanuñ dara li ñuy ñaan mooy nañ bàyyi seen i doom soit ñu att leen bàyyi leen comme niñ ma def téye ma atu yàlla ne ma defoo dara demul ñibbi soit Macky Sall def ay pexe ba ba leen kon li may wax amnistie Macky Sall sa amnistie ak sa dialogue famille des détenus politiques ak détenus yi nekk Rebeuss ñu nekk Cap Manuel pavillon spécial nekk Ziguinchor nekk lugo nekk Diourbel nee nañ ko xotteet am lu ñu njariñ yaa jàpp doomu jaamur bàyyi leen

biñ vous ba une cause di leen xéxal mo tax ñu créé un mouvement des détenus politiques parce que quoi qu'on puisse dire gor gor rek la mëna doon nit mëno and ak mom ci métier nga ay nga trahison ak la lâcheté ba depuis presque deux ans limay wax Macky Sall encore une fois fofu dama ci dama ci que xel wi Macky Sall bi mu

waaye ku ñu ab terroriste la ku ñu ab force spéciale ku ñu commando la ku ñu moo ñoo taal bis yaraax ba pare kannaaru 2000 francs mooy tëj seen i sàmm mënuñoo daj kannaaru 2000 francs mais ñun ñu ana terroriste ñu xam ne nii mësuñoo jàkkaaroo benn garde pénitentiaire xeex ak moom wala ñu def benn répression wala benn violence envers les envers les garde pénitentiaire ñu xam ne mësuñoo jékki-jékki sax def tentative de dañuy rëcc ci kaso bi nga ne ñooñu ñoom ñooy ay terroristes ñoom ñooy ay jihadistes il faut arrêter suñuy bàyyi nañ bàyyi ñëpp duñ bàyyi ñii téye yeneen doomi jàmbur yi fan yi li fi am man damaa jaaxal yow noonu da bëgg bàyyi détenu politique yi te yooyu ne nga ne woon ñii duñ ay détenu politique parce que bu ngeen fàtte ancien dialogue bi lu mu waxoon jàpp ma ay détenu politique ay délinquant laa jàpp ay agresseur laa jàpp ay raykon nii laa jàpp moom day wax di day day goqi ba pare wan naat ko barki dee mu ñëwaat daane non non na ministre de la justice def nu mu gën a gaawee ñu bàyyi a utilisé le mot détenu politique kon la ko waxoon moo am ñu ngeen jàpp defuñ dara soo des innocents léegi nag li koy wax mooy suy bàyyi na ba ñëpp mënta bàyyi ñii téye ñi mënta nekk mais ay ñoom Fadilou Keita ngay jàpp ay nit ñoo xam ne dañu ay pose question Fadilou Keita lan la def Hannibal Djim lan la def Ibrahima Gueye Nder lan la def kenn ku nekk mën su ma doog fii di ko lim yàlla xam ne ne suba fii damay fekkaat mais on est dans quel pays ñu ne léegi loolu dañ ko war a négocier quoi daf ñoo war a woo si dialogue képp ku dem si dialogue bi c'est la lâcheté et tu as trahi ton peuple man loolu laa gëm c'est la réalité ñaanuñ ñaanuñ amnistie ñaanuñ lenn li ñuy ñaan mooy ñu atte boy yi wala ñu bàyyi la ñu dem parce que ñu leen jàpp la famille des détenus pour ñi fi wax ñëpp ñi ñëpp ngis nii ñu yàgg wooteel Macky Sall la seeni doom peut-être ñoom ñu am benn benn amour vis-à-vis d'un leader mais loolu loolu du délit kañ la nekk délit faral nit ñu jàpp la yóbbu la kaso man mii di wax ak yow kenn xamul lu ñu ma jàppee damaa jekk-jekk ñu yóbbu ma jàpp ma tëj ma ba pare ñu ñuy jàpp ñëpp ay actes quatre la ñuy toppee ay actes et manœuvre en contre la sécurité publique ay appel à l'insurrection yu kenn xamul des gros ñu xam ne ñoom fekk Pape Alé Niang fekk nañ ko mu tëdd si lalam ñu jàpp ko yóbbu ba pare ñu ne ñii seen i doom tey ñoom ñoo nekk ay terroristes seen i doom tey ñoom ñoo taal ay biis te dara amu ci lépp ay nar la kon li may wax mooy détenu politique yi li fi am bërki démb mu nekk mutinerie

bu ngeen manifester bu ngeen def dara élection yi mi ngi ñëw dañuy génn ñun ñëpp ñoom loolu ñu doon wax parents yi mën nañu ko témoin kenn ku nekk sa ne la yaay dañuy génn élection yi mais après le 25 février ñu ñu ay dañuy pousse à élection yi wala xam ne dañ koo tooñ benn fan rëbës waru ko benn fan waru ko am rëbës ñu ñu ne léegi dañuy pousse élection yi nañ dialogue ñu pousse élection yi léegi doomu jàmbur yi nag léegi ñuy souffrance bi ñuy dund presque deux ans ñu koy dund di jooy permis de visite pour nga am c'est tout un problème dama suis teroo si cabine 2 Mamadou Seck mais depuis deux mois joxul permis de visite depuis deux mois joxul permis de visite gars yi dañuy rag ay bureau ils sont dañuy rag ay bureau am ñu keroog maa fa fekk ko xam ne Tamba la jógee doom lañ jàpp fii Rebeuss ñu refusé ko permis de visite ñii suñuy gis seeni doom 5 heures du matin ils sont yeewu 5 heures rang 5 minutes nga koy gis presque yaa ngi koy ay 14 heures 15 heures loolu dafa war a continuer institut dafa war a continuer mutinerie am na parce que yaakaar gi ñu amoon tax ñoom it une jour après nee nañ après le 2 avril lépp lu mën di am ci détention arbitraire yi lépp lu ñu mën di am Macky Sall lañ jël comme responsable après 2 avril parce que fan yee dañuy mutinerie moo am mais li fa am jaay doole la parce que chambre 48 la amoon mais ay jeunes yi xam ne amuñ arme yoruñ dara nga ñëw jël lacrymogène sànni leen ko. ñu nekk rëbës biir rëbës prison biir rëbës nga sànni leen lacrymogène xam ne alentour bi sax jaaykat ñëpp dañoo daw ñi mën nañ maa seede parents yi mën nañ maa seede ñoom ñëpp bi ñu ko yëg dañoo daw dem bi ñu fa dee fekk fa benn jaaykat li gën a métti nag li gën a mooy après loolu ñu xañ leen visite xañ leen TC mooy télécentre xaañ leen ay cours man mi jaar rëbës xam naa gis na rëbës bàmmeel la kaso bàmmeel la ku fa jaaru bu noo xam la fa nekk mais ñun ñu fa jaar soo xëyee ñu ne cours bi 9 la wala 15h da ngay pour 15h wala 9 jot pour nga génn pour nga am benn pas faram mi ngi sama ginnaaw bi ngi may bi may dégg xam na baax li may wax da ngay njëkkee pour génn ku demoon sàmba 9 sàmba 10 nit ñi suñuy génn cour soo tegee sa tànk dañ koy damm ndax yàkkam bi gi yàkkam parce que dañuy njëkkee ut ndox ci biti loolu ñu moo am c'est la réalité ñu xañ ne loolu durant une semaine ñu couplé avec le reste du monde suñu parents yi di woote

man nekk naa keroog sept mois quarante-huit nekk naa fa trois mois fa la libéré ñu sanctionné leen lu tax. ba léegi ñu ngi keroos ba léegi ñu ngi keroos man xam naa keroos keroos chambre ba presque cent quarante et quelques personnes ñoo fa nekk benn douze moo fa am bokk na ci chambre yi gën a tàng rëbës parce que waa ñi spécial fa la nekk man xam naa baax li may wax ndax la dañoo ñàkk yaakaar benn discours lañ dégg mooy élection dañ koy rapporté dootu am ñu ne leen kon yéen seen liberté dañ koy bàyyi fii ak neuf mois nous, ñëw di naqaru di wax na ñoom dañoo métti ñu yóbbu leen gën leen waat beneen beneen souffrance en fait li may wax daal mooy na kilifa diine jël seen responsabilité parce que rien n'est encore trop tard lii ñu ngi door a gis presque et quelques personnes nga téye ci far ne ak loolu dafa jeex nous, nak encore une fois sommes nous nous suñu yaay def ñun ñun Nous sommes les anciens détenus nous ñoo li mais incha bi samedi ñun ñoo nous sommes dans nous serons dans les devants Instagram, bi Nous ko suñu yaay def conférence de presse ñun ñi suba wala gannaaw suba def conférence de presse Nous sommes leen taxaw leen parce que mo ñu war Wassalam.